waxatuma laag nag jëkkër bi nga xamante ni nii mhm. da ngeen a sëy ci farata yàlla ak sunna Muhammad mhm. beneen jéng bi amit mooy li nga xamante ni ku góor ki moo ko tay mhm. di ko def dëgg la yor sa jabar ni mooy sama kaani xeeñ jéng ci moom amaana na la sa aawa di toppatoo wooyu sax sa ñaareel toppatoo wooyu la noonu dëgg waaye yow dangaa bëgg a jéng daal rek jéng nga dëgg la day am yàlla nañ ci nag yàlla musal ndaxte jéng baaxul yàlla moo ne nañ yemale lañ tolloole bam uh-huh. daganalee ñeenti jabar uh-huh. dafa daganal ñu ñu yemale tolloole uh-huh. nee na la boo fégalee ci néegu kii waratoo faa dugg dëgg ba keroog nga fay ayawaat sa lu fa nekk sax dañ kaa war a yónnee waaye yow waratoo faa dugg te léegi góor ñi faaleetuñu yooyu góor ñi léegi am na ci ñoo xam ne dañoo jéng ba pant dëgg la teguñu ko fenn tey jii am na ñoo xamante ni man gis naa koo xamante ni na moom maara day mi si ndeysaan euh, dafa doon ànd ak jëkkëram ba dara dul dara yàlla dogal ñoom ñaar ñuy sëy te yàlla rek tax di mhm. sëy di sëy di sëy mu jekk lool mhm. mën booram lool jonge lool mhm. tubaarkàlla macha allah dëgg yàlla di dogal ak ndogalu yàlla muy yóbbu doomam muy faju ji mu def choc bi mu defee choc ndeysaan choc bi metti ci lool mu amoon ci ay damu dam ak maar day misi yu bëri dal ko ci mu faju faju faju faju ba assurance daal di koy fay mhm. biñ ko fayee mhm. euh, mu daal ni borom këram comme que dangaa sonnoon ci man mhm. euh, sa yitte yëpp nga bàyyi woon ko ndax sama feebar bi lii lañ ma fay mi ngi nii fekk na jox na ko yaayam yaayam na ko joxal sa borom kër bi mu joxee borom këram xam nga kooku wàccul yoon bi dëgg la ci yoon bi ba tey borom këram jël xaalis ba dem takkee ji ko ñaareel hmm? bàjjen waaw loolu métti na di dem takkee ji ko ñaareel ba pare di ko ñaawal. ndeysaan. naan ko dangaa feebar ak bàyyil ba wér ak faju ji. ndeysaan. est loolu rafet na. loolu rafetul. loolu nag mooy jëng bi gën a bon. dëgg la ndax yow benn. Mhm. tooñ nga ka nga xamante ni nii parce que liñ la fay loolu pour faju la. dëgg la parce que sekalu accident yal nañ ci yàlla musal dalay topp du la gaaw a bàyyi. amiin amiin nga jël ko dem takk ci. sa jabar ñëw indi ko ci biir kër gi mm-hmm. di kukkali sa aawo mm-hmm. tegoo ko fenn dëgg la aawo bi nga xamante ni moom nga indi si kër gi mm-hmm. mu njëkk ci yow indi la li nga xamante ni mooy doom muy bonheur nga koy gis sa xol bii di neex kooku mënoo koo fay dëgg la su baaxee def ko yaay su safaanoowee bàyyi ko ci biir kër gi dëgg la fooy dem ñëw ni ko ñaanal ma ñu respecté waat soxla yi ci biir kër gi te ñuy aawo njëkk ci kër gi ndax euh, aawakat mi la jural doom dëgg la sàkkal la kër mhm. sàkkal la njaboot jar na nag respecté jar na fonk jar na teg ca kaw dëgg te ku ñeewul sa aawo mhm. du bëgg a dugg ci yow de bàjjen dëgg ku ñeewul sa aawo mhm. du bëgg a dugg ci yow ba pare tey jii soo demee sëy sa aawo ñenn góor ñi gis sa aawalal dara bu weex defar ba mu baax nga génn dem wax ko ñaareel ba jiw mhm. de lii mu ma defal dem moom nangam ak nangam demal nga jëli ko demal nga uti ko jël say secret aawa di ko wax sa ñaareel mhm. boo demee ci sa ñaareel jëli ci sa aawa yóbbu ci sa ñaareel mhm. yow daal boo waxee fi wax góor dangay ngay diiñ am fulla am personnalité dagg la waaye ragal say jabar wala nga bañ a yemale tax koo aye Mm-hmm. wax ko xamante ni samat kee de démb nangam ak nangam démb de la ma fa fanaanoo ci kee moom nangam ak nangam kee moom yoru ko boo ñëwee ci moom kii def la mu mën nga jóge fa demate ca aawo ba ni ko sama ñaareel bi démb non fii li ma fi sentir sentiruma ko fële fii su ma fi ñëwee fekk la ngay wax dara du ca dëgg mm-hmm. taguñu ko fenn mm-hmm. dañ ni yemale yemale lañ wax dëgg la yemale l'islam sax loolu la wax daba mhm. waaye li nga wax dafa am solo lool mhm. ñu insisté ci bu baax a baax mhm. muy góor dafay fanaan fee daal ne démb lii laa fanaan ne nit da am secret liñ naan sëy secret la waaye mënoo sëy ak daba ñëw daal ne bàjjen démb daba di aglee demaat ci kene ko moo démb kii xamul dara kii mënul dara kon lool doyee ñeenti jabar est-ce que mën a yor ñeenti jabar wala yor ñaari jabar laa koy def yombul yor ñeenti jabar wala nga yor ñaari jabar ful laa koy def ak fayda des fois nga dégg doom ju naan sama papa dafa nga sama benn maam ñeenti jabar la yor ndeysaan bu takkee jabar buñ nee ko maam doo may njëkkali sa jabar mu ne déedéet su ma ko mayee day mel ni dama ko ragal du ko ko may ndeysaan jeeg la day sëy maanaam caractère ak fulla ak fayda moo yor ay jabar dëgg la góor gu nayif mënta yor ñaari jabar surtout góor gu nayif mënta yor sax ñett ñaar bañ naan ñett mhm. ndaxte kat dañ ñuy jabar yamaleel mhm. loo jëndal kii jëndal ko kële mhm. loo defal kii defal ko kële bu dee ay ravitaillement tollale ko ci digg bi dëgg la bu dee oor nga leen koy may peser ko ba mu tolloo nga may kii may kii mm-hmm. waaw mais nag sa jabar di sonn ci yow di daw ci yow mm-hmm. nga koy nax fekk la nga koy wax dara du ci dëgg mm-hmm. di ko wor lu mu defanteeg yow wala secret bi mu defanteeg dem na sax ba ci doom yi gën a lante bi dëgg la jéng bi law na ba ci xale yi ba ci xale yi dëgg la parce que da ngay gis koo xamante ne nii moom doomu aaw bi lay gën a bëgg ko doomu ñaareel bi wala doomu ñaareel bi ba ca waa koñ ba sax dañ naan xanaa kii diw la gën a nopp ndax ay doomu diw la gën a bëgg ko yeneen doom yi dem nañ ba dañuy jël mm-hmm. aawo ba doomam di ko jaxaseek yaay bi ndeysaan naan ko sa yaay nangam sa yaay nangam mu dem ba indi ay noonu. ba indi ci am. indi ci am. nisaan wala ñu dem ba jaxase ñaari doom yi ba yal nañ ci yàlla musal mooy doomu baay yi féewaloo. ndeysaan loolu lépp problème mu jëng moo ko indi. parce xale yi ci la ñuy màgg. parce que xale yi dañuy màgg te dañuy gis. yaa gis ku génn daal ni moom sama doomu baay bee de bàyyi ko fay. dëgg la mais ngi noonu. wala mu seetlu xale bi. ni sama papa kat ni ma gis koy def ak sama tante gisuma mu koy def sama yaay. dëgg la dama des fois nga dem ci kër. day am doo xàmmee ñi bokk ndey ak baay ndey ndax kilifa ba moo ko fa def bàjjen mhm. bu njëkkoon boo daan takk soxna da ngay ñëw wax ko sa aawo mhm. li ma gisoon man samay maam di ko dund ñi ma yar dëgg boo ñëwee waxtaan ak sa aawo ñu mhm. ko man kat damay takk soxna waaye nangam mag nangam mag nangam bu njëkkoon suñu yaay dañ daan tegle ñaari mat laa benn bi lañuy ñuy dindi mhm. lalal ko ñaareel ba lalal ko darab lalal ko rido mhm. bu ñëwee ñu ànd fair lay nekk ci jàmm bu doom yi juddoo bu ñu ñëwee dañuy fekk ñu naan aawo ba yaay mhm. naan ñaareel bi tànta ki nga xamante ni mooy doomu ñaareel bi moom tan yaay lay wax aawo bi naan yaayam ji ko jur tànta am na fi ba tey macha allah loolu am na fi ba tey nit ñi ñi ngi koy def dëgg la waaye léegi bareetul nag ndax wujjee gi nga xamante ni jël nañ ko def ko noonu. Mm-hmm. te mu jóge ci góor ñi. Mm-hmm. dem ba féewale say jabar tax ñuy noonoo mm-hmm. nga jeng d'une part. waaw daat ni kii sama ñaareel la moom laa féetewoo. wala nga ni kii sama aawo la moom laa féetewoo. dëgg la féetewoo sa aawo ba yow ñaareel bi day dem ba découragé. am na ñaareel yu bari yoo xamante ni dañuy dem ba defe ni ñoom ñooy aawo duñu ñaareel. parce ci comportement ya la. la jigéen ñi tamit ma leen ñaax ñu. téyewaat seen i borom kër. Mhm. ndax sa jëkkër war nga ko téye ba yow mu njëkk ci moom ki mujj ci moom bu mu la ëppale ci sa place dara. damay dégg ñuy wax loolu. waaw mhm. nga liggéey fa loo xamante ni nii sa borom kër képp koo xamante ni rek indi na la it. du tee mu la kii mooy sama aaw mooy sama yaay moo fi nekk bi fi dara nekkul ba tey dara nekk fi macha allah kon nan ko respecté kon na ma respecté macha allah daba suy wax rek ba tey seen émission Jal Jali mhm. nee naa la moom moo ñi nga xamante ni dañoo négatif foofu lay waxee mhm. waaye foo fekk ku baax tamit am na foo xamante ne nii fekk am nañu am na ñoo xamante ne nii mhm. dañoo foo fekk ku bon am na ñoo xam ne waa ku baax a ngi fa xam ni ko olof di waxee <laughs> voilà parce que am na góor ñoo xamante ni grande sœur mhm. da ngay seet si ci que soo ñëwee ñu ne la kii mooy sama aawo mhm. toppal ki sama ñaareel mhm. ba ci ñetteel ba ci ñeenteel macha allah borom kër ga comme li nga wax léegi léegi kër goo gis rek dafa war a am kilifa boo xamante nii su ne eh nga daal ne waaw daa ji def waaye tamit grande sœur mhm. am na jigéen yoo xam ne dañuy ñëw fekk kër baax lool ñu nekk si jàmm ak salaam ñoom dañuy yàq kër gi mhm. ba seen jëkkër dafay jeng ci ñoom lépp lu ñuy def seen jëkkër ñoom lay laaj loolu met nekk loo xam ne dafa métti trop mooy mooy mooy jeng gi rek yi nga xamante ne nii jaxase tamit baaxul ñaa ngi koy doxal ci kër yi di jaxase kër yi man mhm. jeng ci yow da ngay ñëw fekk sa aawa ne ci jàmm mook jëkkëram ak ay doomam kër ga neex lool ñaareel mën ñàkk dëgg la parce que góor war naa am ba ñeenti jabar. Mm-hmm. ñu ñëw takk la indi la ci kër gi. Mm-hmm. nga ñëw gis ni sa aaw ak jëkkëram ñu ngi ci jàmm. Mm-hmm. gis ni xale yaak seen baay ñu ngi ci jàmm. ñëw ni déedéet lii du fi ame ñëw say si ci kër gi defar taxulaa jóg. yàqala tax a jóg. ak féewale ak tas kër gi ak tas njaboot gi. yàlla nañ ci yàlla musal. nga ñëw fanaanoo ku góor ki ba guddi jot wan ko loo xamante ni su ko gis ci aawoom. jeng day daal di dugg. dëgg la ndax góor ak xale yam. nga ne ko sa doom ji ci kër gi ka daf ma lu jël moog yaayam dañ may def yu sew dañ may def yu nàngam. Mm-hmm. nga commencé fasal sa aawo kanam. dëgg la commencé fasal sa taaw bi